nag nit ñi kenn mën la tax ñuy gërëm te kenn mën la te ñuy gore dee ka jëw dañuy lekk say yëf di wax say ayib defal leen yiw rekk ngir yàlla yow jël leeni lor faw tey noppi kon ñu jël faw say lor nga jël seenu yiw ku lay jëw te yow doo ko jëw jox na lay tonoon mag nga ñaayam te des na taxaw ku lay jëw te yow doo ko jëw jox na lay